kon daal barke day waaj a ñëw Sénégal waaye baax na ba mu ñëw fii maa ngi koy xaar doomu wujju moom wujju rek la mën a doon yaayam ba muy dund musuma woon may jàmm kon nag doomam su fii dinaa ko delloo li ma yaayam def te kër gi ñu nekk sama loxo princesse lay mujj kon nag barka yegg si ci jàmm boo ñëwee fii dinañ xam ne man dama bëgg nit ku gëm boppam gis na li ngay gis fii yépp du kenn man la te dama bëgg li ma am nga am ko nga ñaqal ko sa bopp. fii nag def ko kom sa kër bul am dara loo xamante ne yaa ngi koy xalaat. man daal lépp lu ma bëgg rek mooy liggéey ndax moo ma jëlee foofu indi ma fii donc lépp lu may liggéey lu nekk rek dafay fekk ma ñaqal ko sama bopp. ma wi ma dalal dangay ngay soog a ñëw di nga liggéey t'inquiète pas man styliste laa li may ñëw dafa méngoog yow dama bëgg nga ma may solal samay ñëw. ma lay yóbbu ngay voyager et tout nga defal ma yooyu noonu yëpp bul yàqamti sa passeport moom dina bëri tampon ok Alicia Alicia Alicia dama bëgg nga toppatool ma ko bëgguma mu manqué dara d'accord mu bëgg suba ba ngoon jot amul xaar danga koy def ok ok xamal fi indi ah? bis boo ubbee sa gémmiñ di wax ba kay xam li may liggéey du xam nga li ma capable yaa may dégg xam nga li ma capable yéen seen ndey yi bugguñu leen man maay seen yaay fii waajur bu fii daw responsabilité ba génne sa doom ci mbedd mi man ma récupérer la man def si yow fii man maay seen ndey waaw Mati. waaw naka sa waa kër. ñu tey dama fee ñëwoon mm-hmm. ndax damaa dégg sa yóbbante sama yóbbante waaw du yóbbante sax lépp wax na ma ko ndax maag sama jëkkër amuñu na boobu mais man sëyaan dong laa ci seen biir sa histoire ak sama jëkkër sama yoon ci waaye danga maa laal ndax dangaa def lu ma metti foogoon naan du génn ci làmb làmmiñu gor ak moroom ma di wut si ci keneen sama doom yee ñooy sama àdduna ñooy sama or ñooy sama jama wax juree ji nga ci wax nag metti na ma lool li la tax a jug ndax ñoom taxumaa jug ndax ëmb dafa metti yàlla gasal ma ñaari pax yàlla dogal ma mucc ci loolu am doom nag mu mel mel ak kaan ma gëm yàlla te sante ko yàlla ba ma mayee may nooyee maag samay doom yàlla baax na nag ndax yàlla bu la mayee lii xañ la lii mais ñee ma gis am na sama moroom jigéen yoo xam ne bëggoon nañ koo gis te yàlla tudd ko dogalu ko <coughs> bon ça va xam naa sa xol fees na te dañ ne nettali xuloo xuloo lay jur man je crois que ni la ni ñu la informé ak li ma taxoon a jub du benn non hmm. non benn bon mais comme sa jëkkër la li mu wax ngay mën a gëm bon d'accord mais man jàmm rek moo ma indiwoon parce que dem naa ba xool ni sama loxo war naa ko dugal ci sa njaboot dama ne woon sa doom jooju war naa ko mën a pare parrainer lépp lu war ci moom ma def ko am naa ay moyens yoo xam ne mën naa ko yóbbu bitim réew ñu mel ni moom mën nañ leen defaraat ba ñu duggaat ci société bi jariñ la hmm? mais loolu rek laa ko jëloon mais ñu jële ko neneen bon loolu la mën a demee waaye nag maa tooñ sama bopp parce sa taaw fii la nekkoon may def ci moom li may def ci sama doom mais mu xëy bopp bi ëlbatu ko ñu ne man la fii la ko dale sama taaw boobu li ko dal fii la ko dale ci sa ëtt bii la ko dale wax ji ma la wax ñaanuma yàlla taxawaat fi di la ko wax samay doom damaa bëgg nga génn ci samay doom génn ci sama xel li la tax a jug man taxumaa jug samay doom laa bëgg te sama bakkan bii laa ci teg loo ci bañul rek bañu ma ko ci ma jàppandal plan bii nii rek la dana yàqu non il faut mu plan B par A plus B dinaa ut plan B. sama papa mën naa wax mooy sama léegi daf may ignorer su ma ko nuyoo sax dama faale. su ma toogee di lekk sax mu jóg dañoo ñibbi si Sénégal moom xam na ni que moom rek laa am bu dee def naa erreur. bébé bàyyi jooy man sa yaay baal naa la. allo double moteur. waa sa waa ji woo na ma nee na yóbbu nañ ko charge waaw yow boo duggee du rek tu m'appelles comme ça ñu gisante nga jël sa pourcentage ok ciao. fi jot ci kër lépp lu waajur war a wax ak doomam wax naa ak sama doom boo ko abandonné mën na def lu ñuy rëccu man ak yow sa xarit la woo ko nga waxtaan moom qui aime bien waree def du tey ndax doom bu jigéen yaay moo ko yar xamal ko àdduna

Khadija barki démb bi sa war gor bi duggee ci kër gi ba tey ñëwoon ne ma yaay lii laa bëgg a def. naka ngay organiser sa mariage fan ngay defee sa réception say invité ñan la lan ngay sol nga toog fii ne dangay ngay jooy. en plus seetlu naa ne yow lekkuloo naanuloo lan mooy sa problème. yaay dama xam ne sama papa bu doon dund lii nii yëpp am du am. ne sama papa musul bëgg lii ma jàng la bëgg benn doom rekk la am muy man te jigéen baax na comme góor baax na li góor mën a jariñ nag dama yaakaaroon ne man mën naa ko jariñ. man day sermoné man daal nga xool natt sa bopp ba maaseeg man ne moor nga war a toog fii di ma sermoné Xadija li am dafa am ba pare. damaa nangu sama waru garu doom leble woon samay natt maak samay moroom yaay man bañu ma sëy de waaye boo may maye may ma koo xam ne bëgg naa ko ki may ne may ni man xaw ma ko sax euh, voilà euh, monsieur Boiré vous connaissez toute l'histoire te xam nga pétrole bi actuellement nu mu mel ci biir réew mi bëgguma ku ma ci jiitu je suis d'accord que des étrangers jiitu ma mais <laughs> Maar Fall je veux l'anéantir dama ko bëgg ruiner mu perte ilaa yawmi diin nërmelu këpp. monsieur Faye euh, xam nga bu baax ni man je fais partie des meilleurs avocats ou bien même je suis le meilleur avocat de pays gis nga jigéen su ñaanee baat cib sëy amaana du yóbbu ay bagages de xanaa boroom kër gi may ko ay bagages donc gis nga sa waa ji monsieur Fall. xamul sax li mu def d'ailleurs c'est lui-même qui a demandé la séparation en premier. Khadija gis nga sa baay boobu ngay wax tey bu doon dund toog fii li ma ko sant lay def xam nga li ma bëgg lan la lii am am na ba pare te mënatoo ci dara gis nga sëy bii yaay ki koy sëy ba mu jeex sa baay ba mu teelee yokk damaa bàyyi ak yow. may jóg di daanu di defar di solal ba tey gis ku yor teraanga ñëw indil ma ñu war laa làngal Xadija ma teg say goro di leen teral ñu naan jaag nangu samay xarit wër ma ku ma maaseel lebal naa la war a nangu samay ndawtal ànd ak sama état major dem toog ca réception ba yow boo ma xoolee sa xam ne ku la war a gunge laa Khadija amoo looy def lu dul toog fii di jooy ne man ngay sermone c'est mal me connaître eh les dés sont jetés li may wax wax naa ko ba pare booy boo nag jooy loo mën a jooy dangaa toll ci foofu décision finale moomatoo ko maa ko moom <laughs> donc les cartes sont de notre côté te lu nekk mën nañ ko ci def je vais défendre cette affaire jusqu'à la dernière minute te gis nga monsieur Fall soo ko ëppalewul du la ëppale. Oh, oh, oh, Boiré, épargne-moi tes cours de magistrature. J'ai débloqué énormément de moyens pour couvrir tes honoraires. Pétrole bi sama bakkan laa ci teg fowewuma ko kafewuma ko je veux des résultats et tout de suite tu peux jigéen bu fay eh, eh, ñëw di siisu nii di toog ci buntu kër gi doo ñëw ñu dem ci biir. cos booy su ma toog nii naa je suis à l'aise toogal. Ah, da nga bëgg toogaayu mbedd quoi. ah mbedd mi jëlee lépp di xewe ah ci loo nekk. saa yi maa ci job rek yow xam nga ne job daa tar. yow yaa ngi job fii man job bi nga ma job looy fële damay bàyyi mu sedd. mais lan moo xew lan la yow fay xam nga li ma fa yóbbu woon xam nga mbëggeel yóbbu ma fa dem jël la fa nekk moom ma fa yóbbu mais dafa commencé di compliqué parce que maire bi ngi ciy dugg xoolal yow danga wax ba yay sa bopp yow déjà yow yaa ne foofu mbëggeel dugalu la fa kon donc lépp lu ñu fa wax ci ay kàddu war la metti wala da nga commencé nopp princesse non bu fekkee loolu la ma xam ko ma xam ne yow mii da nga commencé nopp princesse. yow xam nga ni princesse fii laa ko téye jaaxaluma. ma chère. la. naka affaire yi. ñu ngi rek. ma fille ba très bien. ma indil la yegg ci biir wala ma indil la. baax na fii baax na. ah bon d'accord fii baax na man nag li tax ma ñëw coow li laa dégg coow li bi ma ko déggee sama m'a fait mal ma ne nag léegi nag lii nag l'heure a sonné léegi nag dama ñëw pour indi la sama appui man dégg attention bi la hmm. gis nga combat bii hmm. combat de la les innocents n'y ont pas leur place Malal Faye dama ko xam te je vais l'écraser bugguma ci dugal jàmbur. mais tu as affaire à un monstre. justement. ci mënu nekk. maar man ak sama doom yëpp ñu ngi sa gannaaw man jàppale la tey jii laa lay rendre la monnaie. doucement defal daan yow boo ci duggee féete sama côté àddina dina la ŋàbb xanaa nga fàtte sa ex si jëkkër moo Malal Faye ñoo bokk ndey ak baay mbokk ak kon day tasaaroo mais kon mbokk yi day yàqu di ban mbokk mais lan problème bi kon maire bi mooy problème bi maire bi mooy commencé di indi ay problème te yow xam nga sama jikko mais gis nga man li ma bëgg a régler ci kër gi foofu mbindeef mënu ma koo teree régler damay dem ba jeex kon danga ma jël rek sànni ma ci biir kër gi noonu ko nëbbu ma sa bopp yow tu n'es pas sérieux gis nga li nga war a yëg bu bis bi jotee di nga ko yëg leen rek laa la mën a wax lu ndaw gis nga kër googu sama papa moo yoroon video de surveillance yi li mu fa xam dafa bari te lépp a ngi sama loxo gis nga bis nag bu jotee pour ma wax la ko dinaa la ko wax si tu as nag en moi topp ma dem ba mu jeex ba amul confiance teel ma ko wax léegi léegi ma xam ne ni da ngay reculer mu wër keneen ko ba ma nekkee dans les difficultés dama gis mbokk sama famille jëkkër sama famille ñëpp ma tourné le dos bi may fanaan si mbedd bi xiif. di wut mbiskit ak meew pour lekk ko pour sama doom mën a nàmp ana mbokk jëkkër te lu ne laa leen defar teraanga bu dul teraanga ne defal naa leen ko ba may souffrir gisuma mbokk jëkkër gisuma mbokk yow laa gis d'accord mais nag man ba ma lay defal loolu dama la xool rek yàlla boole ma ak yow ma yërëm la defal la ko mais xaar ci woon nga may fay xalaatuma ci woon fay. mais turu mbokk moom bu ko sax tudd ñaata jigéen ñooy sëy mbokku jëkkër sonal leen teg leen fitna amuñu jàmm amuñu salaam bu tas amee ñëpp kontaan ku nekk dem sa yoon ñu lay saytaan yow ak sa souffrance ak sa doom ak sa wéetaay man loolu yëpp dund naa ko gisuma kenn yow laa gis dama lay jàppale. man ak sama doom ñi ngi sa gannaaw di la jàppale loolu laa bëgg nga xam ko. d'accord bon tu sais ce qu'on va lenn la ñuy def. c'est yaa ngi ak sa agence de communication ba tey. bien sûr. dinaa la renforcer renflouer la ay fonds jox la ko ba mu doy. foo mën a def publicité ba ñëpp xam ne Petrofal rek moo fi am il faut ñu wax ba ñu xam ne Petrofal rek moo fi am. d'accord loolu c'est un combat Malal Faye ak man nag c'est un autre combat <laughs> dama ne zaahir am na baatin am na te bilaay dina xam ne ñu la ko digaaleen j'ai la famille derrière moi Bakka va nous rejoindre nañ unir suñu force jeex na va le combattre incha allah bon aw ma toogaay nag damay jóg dem mm-hmm. parce que j'ai des choses à faire comme ça De toute façon, on je suis Philo. C'est moi l'amour. Demandez à Pythagore. C'est mon ami. Arrête de demander qui je suis. Parlez à vos dirigeants. C'est eux qui vous mentent. Ils vous parlent de pétrole, mais pas l'électricité. c'est le développement. Le développement, c'est le rêve de tout un Si vous m'élisez, dootu leen fay courant fal leen ma lu yàllaa ngi ni di jox vous ne donnez jamais sans recevoir en retour et si c'était notre propre monnaie moomuñu ko on nous parle toujours de l'Afrique on est derrière dans la queue il est temps que l'Afrique passe par la grande porte pas par la petite porte sans retour ay doomi Afrique mën nañ ko yes we c'est empoisonné cette monnaie je ne peux pas de votre monnaie il est temps de parler de l'afro-monnaie je ne peux pas c'est moi Philo je suis l'avocat du continent mën naa la baal nag mais juste nga fàttali ma ñett ci lu ma mës a wax ba nga nekkee xale ci lu xale war a def ak lu mu warta def. papa doon nga ma wax xale du sàcc doon nga ma wax xale du ñaan xaalis te aussi xale du fen. si fen googu nag laa bëgg nga wax ma dëkk tu parlais avec qui au téléphone. Bella. mooy maçon bi nekk chantier. kon dama lay responsabiliser jox la xaalis ne la defal ma chantier yi et pourtant mënoon naa ko jox sa yaay nga nekk xale ma wóolu la jox la xaalis defal ma chantier ngay nobante loolu laa mën a am de retour. foo ko xamee. man moom ci liggéey bi lañ xamante ndax tout temps doon na ma wax liggéey bi tool ñuy waxtaan par message. ñu dem ba kuutu fuutu am ci maam bëggee judd suñu dëgg. gaw ma kuutu fuutu tolloo boo fooy noban et puis lan mooy ma wax ne ko jub la. je te rappelle euh, yi ma la delloo. waay. moom moom mu ko jox dama ko joxoon xaalis mu ëpp deux millions mu delloo te papa xam nga jamono ni mel loolu yombatul dinaa la baal loolu sama dëggante la ak yow del nag ginnaaw mi ngi ci sànce bi sama sance man li si des man la baal naa la ndax une fois n'est boo ko defaat d'accord dinaa aussi nga dalal sa xel nga xam ne que man j'ai reçu une éducation xam naa fu may teg sama tànk merci Papa, bagtis ako na. Papagunin yung Daniel ako. xam nga bu demee ba benn yoon laa la mos a dóor si àdduna kon li ma merloo bu ko defaat. ko defaat xool Del ça va. ça va princesse. tu veux boire quelque chose. non merci. ok. tout d'abord dama la woo fii pour excuser wu si li xew la sa diggante yow ak sama yaay ma doon la baalu àq. waaye yow su ma la woowul baa ma message doo ko def sama diggante ak yow tamit bu jeexoon kon nii lay demee. princesse sama diggante ak yow dafa jeex ma ñëw sa kër sa yaay mel ni yor ko yor xajam taxaw di wax lu ko neex nga taxaw di ma seetaan. lan nga bëggoon ma def mais noonu kese laa mënoon réagir kanamu sama yaay. sa yaay taxaw di ma traité te lu ko neex nga naan lan nga bëggoon ma def. yow au début avant ñuy entamer sama relation ak yow lan lañu lan lan la ñu waxante woon princesse réponds waxuma la sama situation nga ne ma da may jël en charge oui ou ma am problème ñëw dina ko expliquer sa yaay ñëw taxaw di ma toroxal nga taxaw di ko seetaan xoolal bu ma fontoo eh, xam nga lu ma bëgg xam diirma bi dina mën a nekk ou pas c'est possible. naa ko def demain. ban heure. matin bu noor. heure laa la wax de. neuf mën na nekk. ok. ok. c'est bon c'est deux minutes jeex na de. tu me dis même pas un je t'aime. toi c'était toi. eh kan ngay wax. ak man. Eh, kii mënul wax ba mu juddoo ba léegi mënul wax mu naan moom la kii wax na ak man.